loolu olof di wax ne mu jóoloo bu saba bu réer wax na ko léegi si xam sëñ Moussa nee na Seex Bàmba noonu na sama mbir ci dunyaa lu mujj ñëw ëpp la wéy ci mbóot yi kulliyati mujizatun taaxarat wa xayru xayraatin la dayka du xayrat kon ku ñëw fii tey dëggalu bay boobu yi dëggoon na ci seeni loxo yéen ñaar ñi kon ñu ngi ñaan mu yàgg lool yaakaar naa ne ñaan nga sëñ Moussa doon ñaan may soxna may ngeen ji may te soxal ko koy ngërëm fal ko loolu la waxoon te ba ko sëñ Moussa bind dafa xam ne ne daray sëñ Touba lu tuuti amut yaa ngi góor ak ju jigéen ñoo yem miraas it taawal caatake yem ci ne yéen lay doon fekk loolu la man te doon bind soxna may di ko joxe muy tuut tànk ci saa yi te fees dell ak baatin yéen yore yéen sëñ Touba ak liggéey bu mag ma waaye sëñ Moussa bëgg gi mu bëgg sëñ Touba bëgg googu dafa landi robalaa ba ci njaboot yi te boole mi taw ci caar waaw boole jigéen ci benn baat loolu waxoon loolu yi la doon xool ci soxna may ñemantu ko lool gane àdduna vingt cinq ñaari at waajuram wuy ci borom muy sëñ mu des fi di tuut tànk sëñ Moussa ñementu ko lool waaye xam na defaru sëñ bi mu di ko ñaamal ba ba ne ba ba wax ne yàlla dund ba tabax ay paleem ba ñuy dox di dox ba soxna si defar këru laylatul xadri fële ca aaliya wala asraja nee naa bu sëñ Moussa dekkiwaatoon de jàkkaarloog la mu ko doon ñaanal soxna may jot na ci kon nag liggéey boobu bi yàlla na yàgg lool sëñ bi na mi ngi leen di ziyaara tey feddali tànki colère yi nga xam ne suñu borom moo ne ku ko fas ci sa digganteeg sa mbokkum jullit colère googu na nga sàmm ndax su ëllëgee dama koy laaj waaw bi la am a al ahda kaana mas'uula dee matal colère su ëllëgee man yàlla koo ma sa fasal kóllëre su fekkee yaa koy sàmm mbaa sàmmoo ko su ëllëgee si biir dinaa la laaj noo téléphone nee na kóllëre googu nag sëñ Moussa doxoon diggam ak soxna May bëggoon ko lool sopp ko lool soxna May jàppoon loolee ba bëyit yàgg wala fal yàgg xasida yi loolee la ca feeñ bari lool nee tànk yooyu moom lay dox moom lay xetal yoonu sëñ Tuubaa nag amul retraité loolu moo tax mu teew ci jëmmam yi ci barab yi ngir wane gu muy wane ne liggéey bii bu ko ñor a la waaye am na ñu ko ñëwal nit ñi suñu ñëwal mu doy sëkk am ñeneen ñoo xam ne suñu ñëwal mu doy sëkk waaye dana jëmmam la bëgg a teewal fekk ñu koy man di ko firndeele fonk kóllëre rek sëñ Moussa Ka ak soxna May Mbàkke kon nag mi leen di ñaanale yéen ñii liggéey bi dox ba ci seen loxo ngeen wér gudd fan mucc te suñu borom dimbali leen ngeen àggale liggéey soxna si sama bàyyi ji ñu jaaroon ca moom tam liggéey ci liggéey bu rafet yàlla na ko yàlla yokk ay leeram dox ca doxin bu rafet ne suñu borom defal dimbalal Seex Abdu Xaadir nee na woon jàmbaar amul kuy dimbal rek am kon nag yàlla leen defal dimbalal moom suñu borom foo gis ne àgg ci diine ci màggaay ci daraja mbaab dayoo ndimbalal yàlla rek ko fa yeggal foo gis nit àgg fa ci àdduna ci xéwal mbaa ci ci ci ci tolluwaay wala cay ndam yàlla rek ko dimbale kon mu ne suñu borom moom nga xam ne mu ngi lëlul aadama ak siit sa doom ja jaar ci noohun ibrahima alayhi salaam sayiduna musa sayiduna isa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaatimu anbiyaay wal mursalin xaatimul awliyaay cheikh ahmad bamba xaatimu rasul kenn ku ne suñu borom moo la tegoon loxo bala nga bëgg nga am ko kon nag muy leen di ñaanal ci barke ñooy yii yéen li ngeen sakk fii ngeen am ko. mbokk yi Serigne Cheikh Abdoul Ahad nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nee na mi ngi siyaare mbokk yi fi teew yépp nee na di am mbégte ci bokk gi mu bokk ak jataay bii. nee di ci jiital Cheikh Mouhamadul Amin ak mbooleem njabootu sëriñ Moussa Ka gépp nag nee na di siyaare Cheikh Abdoul bu sa mii ci wetam ak bokkam yi mu àndal yépp nee na di siyaare way juróom yu tedd yii fi toog nee na dana ñëwaat ci ñoom ci kanam mu ne sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin nee na ñu ngi lay sant di la gërëm it nag di ko jaarale ci sëriñ Fallou mi yore sa kàddu te jottali la ko mu jottali la ko mu àgg ci mbooloo mépp nee na waxoon nañ ko fi daaw seen jataay bii dafa bokk ci jataay yi nga xam ne mooy yi ëpp solo ci laylatul xadar ci la bokk ndax seen diggante ak soxna na nee na waxoon na ko fi nee na ñoom bi ñuy gone nekk daarul mooti su màggal gi masaa ñëw bàjjan day daawul déglu mel ni njàng mu dut waa sañ sëñ Musaa Ka rek fii itam da daan jekk ba ci yàgg mu woolu leen ñu ñëw di ko jàngal yeneen jàngkat yi itam foog naa ne maamun jongo ngi fi maam ma Njaay it daana fi jaar waaye ku ci nekk waaye ku ci nekk way sëñ Musaa Ka rek moom nga koy jàngal ndax day mel ne da ca daan dolli koo ab taalibe di ci dolli ko ak bëgg sëriñ Tuubaa ndax lu dul lool ne moom ñoru ko woon te sëñ musaa nag foofa la nekkoon kon day mel ne kon day mel ne bokk na ci ñim tegoon ci kanamam ci kanamam comme ay référence comme ay référence kon moo tax seen jataay bii moo tax seen jataay bii dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo ci ñun la nee na lu rëy ci ñoom la rawatina nag rawatina nag bi nga xam ne moom toll na fi mu toll bi nga xamee ne yow toll nga fi nga toll ci ay at ci ay at ci dayo ci dayo ci jaamu yàlla ci ak mbaax ci ak mbaax di jóg di ñëw fii di sàmm kóllëre googee ndax boo toogoon ne dikk leen ne dikk leen ndaw li ndaw li nee na du fa jiitu soxnaas ndax boobu cër mooy bi nga am ci kër gi kon sëñ Fallou santal ñu sëñ bi bu baax te xam ne suñ xol sedd na guy te lii nag day firndeel pas-pas ba nga xam ne pas-pas ba nga xam ne moom nga donn ndax li nga wax léegi xam ne wërta wàcc xam ne wërta wàcc moo ko bàyyi ci waar wi moo ko bàyyi ci waar wi waaye moom wàccam jot na bu yàgg lépp loo war a def rek def nga ko kon nag dañ lay ñaanal yàlla kon nag dañ lay ñaanal yàlla nga gunge ñu ba ci kanam nga gunge ñu ba ci kanam ay at yu baree baree baree bare at mu ne nga ñëw fi fekk fi ñëpp kenn bañ a manqué ci liggéey bii nga koy def sëriñ bi nangul la ko te nga ñu fàggul mbooleem daayira yi mbooleem daayira ñu fi ñëw ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem jullit yi seen pas-pas ci guddi gii sëriñ bi nangul na ko ndax guddi gi dafa rëy te àttan lu ne ndax sëriñ bi muy demee bu demee bay ñaan ci barkeb guddi gi laylatul xadar yàlla yéwénal ay mbiram yéwénal mbiri ñoñam kon loolu woyofut de yàlla nañ tàbbi ci ñaan googee ndax ñaanu Serigne Touba day mel ne formalité rek la waaye moom lépp lu di ak bëggam rek ba mu koy xalaat rek la ko ko sëñ borom defal kon nag ñun ñëpp yàlla nañ dugg foofu nee na muy sant itam bu baax a baax sunu mbokk yi fi nekk ci seen taxawaay bu rafet. ba weeru koor teroo ba tey. ba weeru koor teroo ba tey. bis bu yàlla sàkk. bis bu yàlla sàkk. fi la ñuy yendu. muy soxna Ndeye Mbacke. muy soxna Ndeye Mbacke. di sunu wayjur. di soxna Ndeye bu Samee. nga xam ne. soxna May Galas. soxna May Galas. bàjjan ci boppam. bàjjan ci boppam. moo wax ci aw làmmiñam. ne ba ko Serigne Fall naa demal jëli ko. ne ko ba ko Serigne Fall di wax naa ko demal jëli soxna May Galas. booba feragut kon. léppam fii la ñun dañoo judd rek xam ko ci kër gi mook soxna Bali ñoom ñaar lañ xamandoo soxna maa awa Touré soxna Asulo soxna Momi Gay ñoom ñëpp rek ak soxna Maane eh, soxna euh, soxna Fat soxna Fat Fall. so ci mi ngi fi. soxna Fat Fall itam di njabootu soxna Sunjuk. waaw ñëpp rek bàyyiwuma kenn. nee na ñëpp daal bàyyiwul kenn. day sedd ba doo mën sax lim. nee na xolam day sedd ba du mën a lim. soxna maam Jaara Sarr. waaw waaw mi ngi fi. nee na ñooñu ak njabootam lañ. nee na màggat nañ lool nag. gis naa leen ñuy sukkootu. Euh, ak soxna Pend nee na gis na. nee na soxna Pend la dajal ci bunt bi. mu ne ko appareil bi mënatut a jël ku ñaaw. waaye teewut nag ñu ngi góorgóorlu ba ci kanam. sant na leen bu sant na leen bu baax. ndax la ngeen seqoon ak bàjjan. ndax la ngeen seqoon ak bàjjan. seq ko ak soxna Bali. seqoon ko ak soxna Bali. rafetal ngeen ko. rafetal ngeen ko de. damay toog ci bii. day toog ci saalam bii. mel na ku ñàkk yitte. mel na ku ñàkk yitte. waaye dara du ko rëcc. waaye dara du ko rëcc. ni ngeen jàppee rafet na. ni ngeen jàppee rafet na. te ñëpp. te ñëpp. noonu lañ ko gisee. noonu rek lañ ko gisee. te bu nit ñi ñemee. te bu nit ñi ñemee. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. seen taxawaay bii. seen taxawaay bii. bokk na ci bokk na ci. ndax ci bàjjan bati waa dinaa ci ñëw moo moo ci bis bu njëkk moo fi nekkoon. <laughs> mu ne ci bàjjan ca bàjjan ba tey. <laughs> ca bàjjan ba tey. ca bàjjan ba tey. seen taxawaay bi wàññi kuut. seen taxawaay bi wàññi kuut. ngeen da leen a wan ginnaaw. da leen a wan ginnaaw. ngeen gën a jàpp. ngeen gën a jàpp. soxna Bali. soxna Bali dem. soxna Bali dem. soxna Asu ñëw. soxna Asu ñëw. ngeen gën a jàpp. ngeen gën a jàpp. loolu nag day wane ne. loolu nag day wane ne. sëñ Tuubaa dong ngeen di xeeñtu. sëñ Tuubaa dong ngeen di xeeñtu. kenn ku ne ci yéen. ndax kenn ku ne ci yéen. sëriñ bi defal na ko barke. sëriñ bi defal na ko barke. bu ko neexee toog këram. bu ko neexee toog këram. ren ba déwén. ren ba déwén. du génn. du siyaare ji kenn. du siyaare ji kenn. du gis kenn. du gis kenn. te du ko wàññi dara. kon nag lii ngeen def. kon lii ngeen def. seenu baax la. seenu baax la. ak seenu jotale. ak seenu jotale. ak seenu rafetal. soxna May Bas mi ngi ci biir. soxna May Bas mi ngi ci biir. keroog ba ñuy jébbali fii Mourake yi. keroog moo fi toogoon. moo fi toogoon. moom itam. moom itam. man damaa xàmmee rek. fekk ko ci kër gi. ci kër gi. kon kon. Euh, ñoom seen diggante ak soxna si. ñoom seen diggante ak soxna si. diggante bu yàgg yàgg la. diggante bu yàgg yàgg la. waaye rafetal ngeen ko. waaye rafetal ngeen ko. la cay manqué ka des nag. la cay manqué ka des nag. manqué doomu aadama la. manqué la. jëm ci suñu wàllu bopp. jëm ci suñu wàllu bopp. waaye yéen de. waaye yéen de li leen war lépp. def ngeen def ngeen ko. Serigne Touba mi tax ngeen def nag. Serigne Touba mi tax def nag. yàlla na leen fay. te ngeen yàgg fii. te ngeen yàgg fii. lépp loo xam ne seenu bëgg la. te lépp loo xam ne seenu bëgg la. Serigne bi defal leen ko. na ngeen xam ne daal xolam sedd na ci yéen. suñuy xol sax laay wax suñuy xol sax laay wax. xol yi bokk yëpp it sedd na ci yéen. ndax mbokk gi. day day lenn. day lenn. mënuñu koo xàjjale. mënuñu koo xàjjale. te dañoo bokk li nga xam ne. te dañoo bokk li nga xam ne. mooy li gën. mooy li gën. mooy sëriñ bi. kon nag kon nag. buñ ko rafetalee. bu buñ ko rafetalee. dañ koy noppal. dañ koy noppal. la sëriñ Modou Moustapha waxoon ak njabootam. la sëriñ Modou Moustapha waxoon ak njabootam. na leen bu ngeen booloo bu ngeen booloo da ngeen may noppal ci sama liggéey waaye boole gu ab amee itam day noppal sëriñ bi ndax defar gën ñu defar ndax defar gën ñu defar ci lay gën a gaawe kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon Cheikh Mouhamadou Lamine loolu moo doon kàddu yi yow it nag dañ lay ñaanal rek nga yàgg fi lool te di la xamal ne daal sa jàpp sa kóllëre sa taxawaay sa taxawaay rafet na lool